tëjee mooy fan yi am na benn xew-xew bu am ci réseaux sociaux yi mooy benn jeune bu commenté wax benn commentaire bu xaw a ñagas ci jëmale ko ci jigéen ñi parce que dafa am kuy ñëw di lu violence bi am ci jigéen ñi mu ne nous devons davantage tuer les femmes parce que dañoo bëri dañ leen a war a wàññi ba pare ensuite problème yi am ci société bi yëpp jigéen ko indi nan nga jàngatee loolu waaw loolu wax la bu nga xam ni bu ñu bu ñu ñaawlu la euh, boo xam ne euh, doomu aadama bi waroo ko wax surtout ci jamono boo xam ne euh, dama koy wax léegi nii dëkk bi dafa dañoo nit ñi dañoo xaw a nekk ci tension donc li ñu gën a soxla ci ci ci penc bi actuellement mooy loo xam ne dafay dalal parce que boo ko dee xool nit ñi dañ fa actuellement dañu xaw a tendu dëkk bi nit ñi dañu xaw a jaaxle dañu xaw a jaxasoo nit ñi léegi wóolonte bi demeetul noonu ku nekk yaa ngi nekk ci sa garde yaa ngi tekk yaa ngi def nànk yaa ngi moytu jamono jooju soxlawuñu loo xam ne day ñëw di gën a yëkkati fitna wa rawatina nag loo xam ne dafay yëkkati fitna jëmale ko ci jigéen ñi ñoo nga xam ne déjà lottu nañu sonal nañ leen euh, façon mbugal bu nekk ñi ngi leen koy teg yow nga daal di ñëw comme ni ko wolof yoo koy bëgg a yokk ci xar mi karaw loolu da ngay gën a yëkkati fitna euh, loolu jaaduwul donc wax jooju moom loo xam ni lu ñu ñaawlu la maintenant bi ci topp moom mooy ki nga xam ne moo wax loolu man dama koo xam bu baax a baax nag wax ma la xamantu de dama koo xam parce que dama koo jàngal waaw dama ko jàngal euh, léegi kooku dafa nekk ci ay jafe-jafe dafa dafa am benn jamono sax mu am psychologue bu ko doon bu ko doon topp mbat ndax dafa amoon jafe-jafe ak soxnaam jafe-jafe bu metti ba ñu koy suivre sur le plan psychologique waaw kon mën nañu comprendre lu tax mu wax wax ju mel noonu donc ce qui fait que pour man place am actuellement nekkul fañ ko téye mais dañ ko war a jël delloowaat ko ca ja nga xam ne ñoo ko doon toppatoo xelam foofu moom mooy place donc benn mooy wax ji du wax ju ñu rafetlu du wax bu kenn war a wax ñaar mooy ki wax wax bi dafa nekk ci situation bi nga xam ni fii place am mooy ñu delloo ko ci ña nga xam ni ñoom ñoo ko doon topp euh, di ko gunge ba indiwaat ko parce que loolu la gën a soxla fi ñu tollu nii donc ñi nga xam ni ñoom ñoo yore justice bu fekkee ne xam nañ loolu et je crois que war nañ ko xam euh, kooku dafa nekkoon ci suivi psychologique dafa nekk koo xam ni dañ ko doon topp sur le plan psychologique dafa amoon ay jafe-jafe yu metti ci sëyam ba sëy ba tas mu jaxasoo am ay problème yu doy waar yu ci metti euh, ba nga xam ne euh, kooku li mu gën a soxla moom mooy ñu jëlee ko foofu ñu koy teg tegaat ko ci ay loxo psychologue ay loxo psychiatre pour ñu gunge ko parce que ku am perturbation la jërëjëf soxna si